Bienvenue dans cette rétrospective des faits séants de l'actualité de la semaine sur Sud FM, Scène Radio. Élection locale du 23 janvier 2022, la guerre des candidatures au sein de Tarot Sénégal fait rage. Les responsables de Tarot Dakar ont finalement entériné la candidature de Barthélémy Diaz à la mairie de la ville de Dakar au détriment de la mairesse sortante Soham El Wardini, alors que les partisans de la mairesse réaffirment sa candidature au poste. Ces partisans, renforcés par l'appui du caucus des femmes leaders, invitent les responsables politiques de la coalition Yewwi Askan Wi à investir Soham El Wardini conformément à leur engagement Amadou Moustapha Dieng. La guerre des candidatures fait rage au sein de la coalition Taxawu Sénégal entre Soham El Wardini, maire sortante, et Barthélémy Diaz. Aujourd'hui, c'était au des partisans de Soham El Wardini d'afficher leur soutien et de porter la candidature de la mairesse à travers une résolution. Dakar, conseillers municipaux et sympathisants, réaffirmons notre soutien total à Madame le maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini. Soutenons la candidature à la candidature de Soham El Wardini à la ville de Dakar. Rappelons que conformément à la note circulaire numéro de la coalition Yewwi Askan les candidatures individuelles ne sont Après avoir souligné le bilan, selon eux, élogieux de Madame le maire, comme ils l'appellent, ils ont rappelé la longue lutte qu'elle a menée à côté des femmes pour la libération de Khalifa Sall. Et d'ailleurs, avec la voix des femmes du caucus leader, ils invitent Khalifa Sall ainsi que les leaders des autres partis de la coalition Yehu Askanui à porter leur choix sur Soham El Wardini. Nous rappelons solennellement aux leaders politiques l'engagement qui a été fait avec la présidente Fatou Sow Sarr, et les images sont encore là, de soutenir les candidatures féminines. Donc nous ne serions acceptés que la candidature à la candidature de Madame Soham El de la ville de Dakar, ne soit pas remplie et surtout soutenue par tous les leaders qui sont dans cette coalition à laquelle elle appartient. ils Signalons que selon ses partisans de Soham El Wardini, jusqu'à présent, la coalition Taxawu Sénégal n'a pas encore officiellement porté son choix ni mandaté aucun candidat à la candidature au sein de la coalition Yewi Askanui. Les investitures provoquent également des ruptures au sein de la coalition de la majorité. C'est le cas à Thiès où l'on note l'implosion de Beno Bokuyakar. De nouveaux schémas sont en gestation pour éviter à la coalition présidentielle une débâcle des dimensions qui n'ont pas échappé au parti Réumi où le choix des trois têtes de liste des communes suscite polémique Thiès Babacar Ndao. Le choix du ministre Yankoba Diatara et du PCA de la LONASE Sirédia pour diriger la liste de Benno Bokk Yakaar respectivement à la ville et au département de Thiès enfonce la coalition présidentielle dans des eaux troubles. Le maire sortant Talla entend défendre sa survie politique dans la nouvelle coalition Waa un schéma qui ne surprend pas les observateurs thiessois après l'investiture de Talla par le CCPA, le cadre de concertation des partis alliés l'occasion du camp présidentiel dans la cité du Rail. À côté de cette coalition YTS, une autre liste regroupant d'autres alliés de Benno Bokuyakar à Thiès euh, sous le nom de coalition citoyenne And Sigil Thiès est en gestation. Euh, parmi les initiateurs, Dr Djibril Sarr, candidat à la mairie ouest, Abdoulaye euh, à l'est, Ousmane Diop de l'alliance Wallu Askani, candidat à Thiès Nord, et deux autres prétendants à la mairie nord de Thiès, Malay Diop et Abib Niang, tous deux de la paire, qui ont décidé de maintenir propre bannière. Des investitures de la discorde qui n'échappent pas les proches de Maud à qui récusent le choix du président Macky porté sur Yankoba Diattara. Ce dernier et son mentor Idrissa Seck vont devoir également trancher sur leur tête de liste dans les différentes communes de Thiès où les maires sortants réunis sont récusés par leurs propres camarades de parti. Idrissa Seck pourra-t-il surmonter ces obstacles? Attendons de voir. Affaire de trafic présumé l'Assemblée nationale chargée d'examiner la demande de la levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar Biaï et Elage Mamoudou Sall dit disposer de suffisamment d'éléments pour déposer son rapport à la plénière qui sera convoquée dans les meilleurs délais. La commission s'est réunie ce vendredi pour auditionner les deux députés. Elle est composée de 11 membres, huit représentants de Benobok Yakar, 2 du groupe de liberté et démocratie et un député parmi les non-inscrits. Affaire de redressement euh, fiscal du groupe des médias, la direction générale des impôts et domaines a commis ce lundi un avocat et un huissier pour faire l'inventaire du matériel du groupe de presse sous une forte présence de gendarmes, une situation qui inquiète les travailleurs qui craignent pour leur avenir. Abdoulaye Diop. C'est un décor peu habituel que nous avons trouvé devant l'immeuble du groupe de presse des médias. Des gendarmes y sont positionnés, deux de leurs véhicules stationnés à quelques mètres. Ils sont venus accompagner un huissier et un avocat pour l'inventaire du groupe Confie Simon Faye, rédacteur en chef de Zig FM et On a reçu un huissier ce matin, accompagné de gendarmes. Ils sont venus, prétextant, ou disant en tout cas, c'est ce qui les amène, qu'ils sont l'immeuble, rez-de-chaussée jusqu'au cinquième étage. Une forte présence de gendarmes qui inquiète les travailleurs. Et c'est ce qui m'inquiète un peu. parce qu'ils sont venus, s'ils sont venus en tout cas, espérant une résistance dans la maison, je pense qu'ils ont fait fausse route. Parce que, à mon avis, ça ne valait pas tout ce dispositif de sécurité. Ça n'en valait vraiment pas la peine. Et nous, nous sommes venus faire notre boulot. Selon le responsable des la démocratie de recevoir un complémentaire la suite on ne sait pas peut-être ce sera pour évaluer peut-être pour après vendre le matériel c'est des procédures que que mais si on doit en arriver là je dis tout simplement que c'est la démocratie au Sénégal qu'on veut bâillonner. Après le blocage de leur compte le fisc sénégalais a fait l'inventaire des matériels logistiques du groupe un groupe qui continue de dénoncer un acharnement politique visant à asphyxier l'entreprise. Des organisations citoyennes, des activistes et journalistes ont organisé un sitting de soutien au groupe des médias. Euh, selon les initiateurs de la manifestation, le groupe de presse fait l'objet d'une procédure de recouvrement fiscal sur fond de règlement de comptes politiques. Ils ont interpellé le président Macky Sall face à ce qu'il qualifie d'acharnement et de tentative de liquidation et de musellement de la presse. Il a plu d'importantes quantités sur l'étendue du territoire ce lundi. Il s'agit d'une pluie de mousson selon la météo. À Kaolack, 61 mm enregistrés ont entraîné de nouvelles inondations dans les écoles, plusieurs quartiers inaccessibles dans les champs également. Des récoltes exposées sont totalement trempées, nous dit Mamadou Camara. En cette période de rentrée des classes dans la nuit du dimanche au lundi entre 2 et 5 du matin, la commune kilomètres de pluie. Une situation qui a encore replongé des écoles et des quartiers inondables dans des difficultés. Matar enseignant au CM Makakoun, la pluie a surpris beaucoup de gens. Les gens croyaient que la pluie était terminée. À Kaolak, ici, nous avons des écoles à problème parce que nous avons beaucoup d'écoles qui inondent. Les rues de Kaolak ne sont pas canalisées. Beaucoup d'élèves sont en retard aujourd'hui. Les enseignants ne peuvent pas regagner leur

Il s'agit d'une grande opération de saupoudrage à travers un pompage de toutes les habitations. L'objectif est de tuer le moustique vecteur dans cette zone. C'est une véritable guerre que les autorités sanitaires de la région de Saint-Louis viennent de déclarer aux moustiques du genre Aedes, principal vecteur de transmission de la maladie de la dengue. Il s'agit en effet des activités de riposte démarrées à Rosso où le district sanitaire de Richard Toll a lancé dans la matinée de ce jeudi la vaste opération de saupoudrage contre cette épidémie. L'objectif est de procéder au pompage au niveau de toutes les habitations à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Une opération ayant pour principal but de tuer les moustiques du genre Aedes dans cette ville de Rosso où les premiers cas positifs à la dengue au nombre de 12 ont été enregistrés le 8 octobre dernier à la suite des analyses faites par l'Institut Pasteur de Dakar. À la date de ce jeudi octobre 2021, le district sanitaire de Richard Toll a eu à enregistrer 49 cas positifs à la dengue. un nombre qui à tout moment pourrait être revu à la hausse car les résultats de plusieurs prélèvements envoyés au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar y sont toujours attendus. Cependant, le constat qui est fait par les autorités sanitaires est que le virus de la dengue circule très activement dans cette zone de Rosso et ses environs. Le chef de a procédé à la pose de la première pierre du Centre national d'oncologie, un hôpital d'une capacité de 110 lits pour la prise en charge adéquate des cas de cancer, projet financé par l'État du Sénégal le Fonds coopération pour le développement économique de la République de Corée, près de 55 milliards le montant du euh, projet. C'est tout pour ce rappel des faits qui ont marqué l'actualité de la semaine sur Sud FM Scène Radio. Il vous a été présenté par Tradisen. Merci de l'avoir suivi. dal leen ak jàmm mbokk yi ci xibaar yu gën a fës benn ci ay bés fii ci Sud FM Sen Radio dañu koy dooree ak élection locale yi ñu dëgmal guerre ga nag tàmbali na gannaaw ba ñu ñuy investir ñii di candidat yi njiitu taxawu Sénégal yi nag ñoom di nañuy samp Barthélémy Diaz ngir rek mu nekk maire bu euh, Dakar loolee nag ñi ànd ak Soham Wardini ànduñu ci benn yoon ñoom nag dañuy sampaat ki nga xamante ni mooy maire ba ñu am njàppana lu caucus des femmes leaders ñu ngay woo responsable politique yu coalition Yewwi Askan Wi ñu daal di investir ki di Soham Wardini comme ni ñu ko waxee woon Amadou Moustapha Dieng. ñu ànd ak moom ni ko ñun dañoo pare pour sampat sa candidature nga jiite. ñu continuer li ñu naan ak askan xëccoo bi tar na loolu ci biir taxawu Sénégal ngir xam kan la ko coalition boobule wala tabb diggante Soham El Wardini di maire de Dakar bi ak ki nga xam ne moo di Barthélémy Diaz ginnaaw bi nga xamee ne démb ay ñoñoom wax nañu tey nag ñooñu Soham El Wardini di xamle ñoom it samp nañu ndënd seeni jigéen boobule ngir mu nekkaat maireu Ndakaaru. jëmm ji toog di madame le maire Soham El Wardini est bel et bien candidate Yewwi Askan Wi ci biir taxawu Sénégal loolu ñu bëgg mu leer ci bopp ñépp gis nañu nag ay notes yu bari yu génn waaye yooyu jàpp nañ ni jarul solool ndax décision bi taxawu Sénégal moo koy jël le président Khalifa Ababacar Sall ak équipe am ñooy décider ni diw mooy nekk candidat taxawu Sénégal à la ville. ginnaaw bu ñu fàttalee bilan bu am solo bi nga xam jot na ko liggéey ginnaaw bu mu wutoo Khalifa Sall ak it xeex bi nga xam jot na ko xeex ak jigéenu ndakaar wi ngir ñu bàyyi Khalifa Sall boobule ñaan ak Soham El Wardini booleeg ndimbalu caucus des femmes leaders ñu ngi taxaw temm te di wax xalifa Sall ak leader di nekk ci coalition Yewwi Askan Wi daal di tabb Soham El Wardini mile ci élection locale yi di ñëw. en tant que candidat à la candidature mu ñëw dëggal boppam wane ni dafa reconduire gën a fesal gën a dëgëral gën a taxawal candidature am wax ni nag candidature bi kenn mënu ko salfaañee parce que nag wax dëgg yàlla liggéey na fi lu nga xam ne war na fay taxaw donc nous rappelons solennellement aux leaders politiques leur engagement à accompagner les femmes mais bu gis les femmes leaders dina taxaw ànd ak yow waaye taxaw ba nga xam ne candidature bi dina jàll taxaw ba nga xam ne aussi vote bi dina massif pour toutes les femmes qui sont candidates incha allah rabbi ci noonu sax ñu xam ne ne ñoom li ñu jàpp moo di ba fi ñu yegg tey coalition taxawu senegal jotoogul joxe benn ndigal wala mu joxe tuuru kenn ne moom la tabb ngir mu nekk mbëru coalition taxawu Sénégal ci biir yeewi askan wi. tasaaroo googu bàyyiwul benn yoon ñi di coalition benn Bokk Yaakaar ñu ngi koy seetlu ca Thiès foofee nag ñu ngi teg nag ay yoon ngir rek moytu li ni mel ndax ñetti nit yu ñu tànn ci bopp liste commune ya loolee nag moo fa andi coow dañ ci ànd ak Babacar Ndaw. Ah, donte ñu ngi ko doon ñurumtu leer na ni ki démb ministre Yankoba Diatara moom le président Macky ak Idrissa Seck tànn ngir ñu. jiite mairie bu ville war si ànd ak Siré Dia di PCA ngir mu jiite département bi si troupe Benno Bokk Yaakaar dogal ba nga xamante ne fekkoon na Benno Bokk Yaakaar mi ngi woon si ay jafe-jafe mbir bi tey nag dafa gën a fekkoon na Talla Sylla maire bu Thiès daas fanaanal ba taxawal sax li di coalition waa Thiès joxe caution bi waaye it jaar fi nga xamante ne fa la war a jaar ñoom jàpp nañ ne mburug soo bi moom fii si Thiès jëfe wuñ ko boobu ba a gis nañ ko ba tax na sax Talla la carte de concertation des partis alliés moom jotoon na ko tabb ngir jàppoon nañ ne dina demal la ak yoonu boppam ñeneen ñu bokk ci Benno Bokk Yaakaar jàpp nañ maire yi fi nekkoon fii war nañu def seen bilan laata ñuy laajaat ba tax na coalition bi nga xamante ne taxawal nañ ko muy ànd si Gila Thiès Abdoulaye Dieye nekk si docteur Djibril Sarr Ousmane Diop ak ñeneen kàngam ñoom jàpp nañ ne tey ji am nañ chance yu bare ngir fexe président Macky Sall bañ a ñàkk dëkk bi di Thiès ne choix yi nga xamante ne def na ko gënalu leen si biir commune bu cees Nord ñaari kàngam yu bokk si APR muy Malay Diop ak Habib jàpp nañ ne seen candidature dañ koy maintenir ne ay at a ngi nii ñu ngi liggéey xam nañu expérience bi sa jàpp nañ ne ah, maire bu leen bëgg proposé foofu si Thiès Nord mu bokk réew mi buñ ko fa tegee askan wi danañ ko sanctionné xam ne ñoom ñoo bokk si kaw Maodo Malick Mbaye njiital ANAMO ñoom tey ci suba la ñu xëy sax jàkkaarloog taskatu xibaar yi am nañu mberteel président Macky Sall ñi mu leen choisir rawatina maire bu ville nee nañu moom ak ah, kenn gënul yaay Maodo Malick moo waroon a jiite maire bu ville bu Thiès sa bare na dingat yu nga xam ne teg nañ ko si ndox xam waa réew mi ni ñu géré woon li nga xam ne moom mooy dëkk bi ah, muy indi beneen coow si biir camp réew mi sax Idrissa Seck si boppam ba fii ñu tollagum amagul dara lu leer lu mooy Yankuba Diattara mais yeneen ñetti communes nga xam ne leer na moom moo ko war a jiiteek waa partem amul kenn ko nga xamante daal fii joxe na tur leer ñu wax ci affaire trafic passeport diplomatique ak commission ad assemblée nationale nag daal di nay daje euh, aljuma ji ñoom nag nee nañu am nañu ay éléments yu mat ngir rek euh, déposer seen rapport ca plénière bi nga xamante ne dinañ ko woote ci lu mu a gaawee bi nag euh, fukk ak benn membre ñoo ko sekk juróom Yaakaar ñaar ci groupe Liberté et Démocratie ak benn député eh, ci ñi nga xamante ne ñooy non inscrits yi. dañ ci eh, toftal ak affaire redressement fiscal ce groupe des médias direction générale des impôts domaine nag daal dinay andi ab avocat ak huissier altine gi ngir rek ñu def inventaire matériel groupe de presse boobile gendarme yi nag feesoon fa dell muy situation boo xamante ne jaaxal na loolu ñu fay liggéey ñoom ñi nga xamante ne seen xel tey na loolu ci seen avenir Abdoulaye Diop. décor bu ñu dul faral di gis la ñu daal di fekk ci suufu immeuble bu groupe de presse bi di D-Media ay gendarme daal di fay taxaw ñaar ci seeni oto taxaw fu sorewul boob lépp bërëb ñu ñëw gunge si ab huissier ak avoca ngir ñu càmbar matérielu groupe boobee suñu sukkandikoo ci Simon fay di rédacteur en chef bu Zig FM ak Sen TV. ab huissier moo fi ñëw ànd ak ay gendarme ne dafay def inventaire matériel bi da koy répertorier li fi nekk ci matériel yi yëpp jógee rez-de-chaussée ba li fi nekk ci matériel yëpp li nekk ci matériel xam nañ ko li nekk ci këru liggéeyukaayu presse xam nañ ko donc ci noonu lañ ñëwee takkuwaayu gendarmerie bi nag daal nay jural njàkkare liggéeykat yooyu. mais li ma ci jaaxal mooy ab huissier bu nar a ñëw ànd ak ay gendarme yu ni toll lan lañ doon xaar lan lañ doon séntu xëy na dañ doon séntu peut-être am ci biir kër gi mais ma ne résistance mënul que ñun ay liggéeykat lañu jóge suñu kër ci jàmm bëgg ñëw def suñu liggéey ci jàmm ci jàmm suñu sukkandikoo ci ki ñu dénk rédaction yi démocratie bu Sénégal moom moo ci nar a nërmeelu su groupe bu fekkee daal dinañuy tëj bile groupe li ci nar a topp peut mooy ëllëg ñu tëj des médias te buñ tëjee des médias damay jàpp ne démocratie la ñu na saxal parce que fii quand même muy organes yi ngeen jógee muy fii ñun dañu liggéey ci démocratie ginnaaw ba ñu bloqué seen compte fisc bu Sénégal daan nay def inventaire bu matériel bi groupe de presse bi nag di wéy di ñaawlu ab politique boo xamante ni ko tax a jóg mooy nasaxal bi lépp entreprise Abdoulaye Diop ci aljuma ji organisation citoyenne yi ay activiste ak it ay taskatu xibaar ñoo dekk amal ab toogaanu ñaxtu di ko jàppale waa groupe des média bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag groupe des média wàllu politique donc lañ ko taal di tongalee ba tax na ñuy woo njiitu réew Macky sàll mu daal di ci indi ay saafara ci li nga xamante ne ñoom jàpp nañu ne acharnement politique la dindi fi ab groupe de presse. ci altine gi nag taw na ay taw yu métti ci réew mi yëpp bu ñu sukkandikoo ci waa météo nag ñu ngi ko tuddee pluie de mousson ca Kaolack juróom benn fukk ak benn milimètre la fa taw ba tax na nag ba tax na nag inondation daal dina leen wuyuwaat ca l'école yi ak yenn gox yi rawatina nag ci biir tool ya fa nga xamante ne lu ñu bay ba noppi daal di koy teg mujj ñu koo jël mu daal di tooy xepp Mamadou Camara lañ ci yàndal. jamono ji nga xam ne école ubbi na ñu yaakaar ne taw bi jeex na ci guddik dimanche jàpp altine diggante deux heures ak cinq heures du matin Kaolack taw na taw métti juróom benn milimètre ak benn nemmeeku nañ ko ci li ñu jëlee ci météo jafe-jafe yoo xam ne yi feeñaat na ci école yi ak tamit ci quartier yi nga xam ne seeni borom saa su tawee dañuy génn seeni kër Matar Gueye enseignant see makk kawoon kala mi ngi fees dellu ndox mbedd yaa ngi fees kër yaa ngi fees école yaa ngi fees génn sa kër sax problème na da ngay yow fekk kër gi fees dell ak ndox Kaolack kenn canalise ko Kaolack mbedd yi day taa tey boo demee passoir ndox yaa ngi ba ci óom nit ñi xaaxoon waxatuñ ko jalañ waxatuñ ko école bi ko léegi ñax mi ba mu dañee day def camp forcément dem école mais liggéey bu difficile lañ nar a def liggéey bu difficile élève suñ demee dañ fay fekk rek la ñuy xool jéem ci mën a jéem mais comme dogal yàlla mënuñ ci dara te kaw la aussi mënuñ ko a ci biir yi tamit ci gerte gi ah, wér-gu-yaram Coroso daal nañ fay ah, gis nag lii di épidémie dengue ñeent fukk ak juróom ñeenti nit ñoo ko fa daal di am ba tax na nag autorité yi jóg nañu ngir fippu dindi fa yow boobu nga xamante ni moo koy indi opération saupoudrage la ñu amal dañ ciy ànd ak Yves Tendeng. ñii nga xam ne ni ñoo ŋànk wàllum kër docteur fii ci Ndar daanaka taxaw nañu temb fas yéene jàmmaarloo ak yow bi nga xam ni mooy joxe feebar bi ñu duppee deng te ñu nemmeeku ko jamono ji ci diwaanu Rosso ak li ko wër. muy xeex bi ñu daal di fësal ci activité de riposte yi nga xamee ni door nañ ko ci diwaan google te waa district sanitaire bu Richard Toll daal di fa tàmbali ci alxames gi benn opération bu mag ci wàllum saupoudrage te ñu fas yéene fa pompe dëkkuwaay yi di ko dalee ci biir ba ci biti muy opération bi nga xamee ni bokk na ci liñ ci mëbët moo direk fexe ba rey yoo bi nga xamee ni genre ay des la te muy far di joxe feebar boobu boobule ñuy duppee deng foofule ca Rosso fi nga xamee ni njëkkeelu cas positif yi tolloon ci fukk ak ñaar ñoo ngi ko nemmeeku ci juróom-ñetti ci weeru octobre bi ñu weesu ginnaaw analyse bi nga xamee ni waa institut Pasteur bu Ndakaaru defoon nañ ko. booba tey lim bi daal di yokk ba mu toll ci ñeent fukk ak juróom ci ay cas positif lu soxal feebar boobu la di deng. muy lim bu nga xamee ni mënees naa yokk ci waxtu yi wala fan yi ñuy dëgmal ndaxte bëri na ay prélèvement yi nga xamee ni yóbbu nañ ko ca institut Pasteur bu Ndakaaru ngir ñu def ay analyse te jamono ji ñuy xaarandi résultat yi waaye daal ak mu mënti doon ñi nga xam ne ni ñoo yëngu ci wàllum kër docteur gëstu yi ñu daal di def wone na ne doomu jàngoro bi mu ngi circulé ci lu gaaw a gaaw ci diwaanu Rosso boobule ak it dëkk yu ko wër. njiitu réew mi Macky Sall daal di nay rek teg xeer bu njëkk centre national d'oncologie muy foo xamante ni dañ fay fajee cancer hôpital boobu nag dina am téeméer ak fukki lal ngir faj nu mu waree képp koo xamante ne am nga wopp boobu di cancer ñii di nguuru Sénégal ak waa Corée ñoo daal di financé bi le projet tollu ci lu mooy juróom fukk mbokk yi li moo fi nekkoon xibaar yu gën a fës benn ci ay bés fii ci Sud FM seen rajo Khady Sène doo leen ko jottalil jàngeen jëf